Dans la mesure où des, des conditions qui doivent nécessairement exister entre musulmans ou entre simplement des personnes qui se fréquentent. Ces conditions, c'est de faire de sorte que leur, relation soit empreinte de cordialité, que la véhémence les insinuations malveillantes ne puissent pas avoir de place. C'est important que cela puisse être dit à ce moment-là. D'abord un jour de Tabaski, qui est un jour de pardon, mais aussi qui est le jour de l'ouverture de la campagne électorale. Nous ne devons pas avoir une campagne faite d'invectives, faite d'injures et faite d'appel à la confrontation. Au contraire, la campagne électorale vers laquelle nous allons devrait refléter les, les qualités qui sont celles d'un bon citoyen, d'un musulman ou d'un croyant tout court. D'un croyant tout court. Si ces qualités se reflètent à travers cette campagne que nous allons vivre, à ce moment-là, je suis sûr que les Sénégalais apprécieront ces moments. Mon message que j'ai servi aux Sénégalais ce matin ne parle que de paix. Et Serigne Touba disait que dans ce monde ou dans l'au-delà, il ne voit pas une faveur beaucoup plus importante que la paix. La paix est la chose la plus importante ici et là ba nous allons. Donc, il faut préserver la paix. Euh, sëriñ bi li mu wax wax ju am solo la te fi mu ko waxee la am solo rafetal am jukko yu rafet di wax wax ju rafet di jëf jëf ju rafet gannaaw ba nga gëmee sa borom wax nan ni sunu borom day fay ay yuyu kawe kawe koo xam ne day rafetal sunu yaakaar Cheikh Ahmad Bamba nee na gisul xéewalu yàlla bu ëpp doole jàmm jàmm fii jàmm fanu jëm nee na gisul lu ko ëpp kon nag nit ñi nanu wax jàmm nanu dox jàmm nanu diglanteeg jàmm du tee na nga am fu lëw taxaw laaj sa wareef rawatina nag sunu dëkk bi nga xam ni mag ñi doon ñaanal mag ñi doon sonn si dëkk bi pour jàmm sax fi kon na ñëpp dox jàmm euh, man defe naa ni ku dégg sëñ sëñ Moustapha te jëm si campagne électorale sa gémmiñ warul doon gémmiñ guy saxaar gémmiñ gu bëgg Sénégal moo war feeñ te nan la noo bëggee Sénégal mooy xam ni am na nu gis-gis senegaal am na nu dem nu bëgg senegaal deme ka waaye ñu xam ni Sénégal mënul dem mukk te jàmm amul bu leen fàtte ni gannaaw ba amuñu woon petrol mu ngi soog a feeñ amuñu woon or ñu ngi koy soog a tàmbali jëfandikoo teewul Sénégal dafa amoon ay yiw yu bari yu fi daan am ndax lu tax jàmm képp am na dëkk yu nu ëppale ay gànjar téeméeri yoon waaye si fitna la nu dëkk fépp foo xam ne fitna am na ña fa nekk dañu ña fa nekk dunu dund dund gu neex kon nanu tabax jàmm nanu dox jàmm loolu mooy njariñu Sénégal